xasamate baax na too di kër këraan li law liyaay dunya ci ndigalul sëriñ Muntaxa Mbàkke xalif général des Mourides sëriñ Abo Mohamed Mbàkke xalif Cheikh Mamadou Mamoun Mbàkke ci ndigalul El Anta Mbàkke xalifa sëriñ Mouhamadou Rokhaya Anta Mbàkke borom Daaru ak Gaawaan sëriñ Mbàkke Jéey Karoleur taalibe El Hadji Mame Anta Mbàkke moo am mbégte di leen yëgal bésub cant màggal ak ñaan ba mbaaxoo defal sëriñam soppeem sëriñ Mouhamadou Rokhaya Mbàkke ibnu sëriñ Mouhamadou Mamoun Mbàkke ibnu El Hadji Mame Anta Mbàkke mi ko dëppaleeg bésub a weeru janvier 2023 ma ngay amee Mbacke Bawal quartier Gawane Darou Salaam ca kër Serigne Mbaye Dieye bis boobu nag ren mi ngi ko dara jàllee Serigne Abdou Diandou Mbacke ibnu Serigne Mouhamadou Mamoun Mbacke ci teewaayu ab xalifaam Serigne Mouhamadou Roqeye Mbacke ak Serigne Dame Mbacke ak mboolem ay rak dara jàllee bis ba soxna jaare Gueye si ndiit yi kam Serigne Mbacke Dieye karoleur taalibe El Hadji Mame Cheikh Anta Mbacke fas na yéene fàttaliku ca bis ba defal ca ay ñaan Serigne Tako Fall rahmatullahi alayhi Serigne Mor Silla rahmatullahi alayhi soxna Fatim Mbacke rahmatullahi alayhi soxna Fatim Mbacke Mbacke rahmatullahi alayha soxna Sooda Mbacke rahmatullahi alayha ak mboolem jullit ya dawlu dana xëy jàng alquranul karim diggante 8 ba 12h ci njiitul Serigne Bassirou Cissé ak mboolem ñamu baaxoo àndal 14h nag dañuy julli bernde 15 ba 20h jàngkati xasida yi ñooy barkeelu ñuy wéyal siyaare ya di dalal gan ña diggante 21 ba 23 ca la def conférence bu mag ba dund jaar-jaar yi Serigne Mouhamadou Rokhaya Mbacke Serigne Fallou Gala ca programme ba di ca sàkku nag teewaayu mbooleem njabootuk xaadimu rasuul njabootuk mam Cheikh Anta Mbacke njabootuk sëriñ Mouhamadou Rokhaya Mbacke rawati njabootuk sëriñ Mouhamadou Mamoun ñi mbokkal sëriñ Mouhamadou Rokhaya Mbacke ak mbooleem seexi yoon wi jullit yi ak taalibe yi xarit yi ak soppe yi ak valeur yi ak dëkkandoo yi mi ngi koy yëgal nag monsieur Gallo Ba ministre de la fonction publique maire de Mbacke monsieur Abdou Mbacke Ndaw député à l'Assemblée nationale Alhaji Mor Ndiaye conseil économique social et environnemental ay rakkam mbooleem dongay tërbiya yi jëwriñ ñi dayra yi ak membre yi góor ak jigéen ak mbooleem association yi sëriñ Mbàkke Jéey karoleur taalibe El Hadji Maam Anta Mbàkke moo am mbégte di leen yëgal cant gu mag gam baaxoo defal at mu jot sëriñam soppeem sëriñ Mouhamadou Rokhaya Mbàkke jàpp ko ren ci bisub yeeslu ba di alxames juróomi fan ci weeru janvier 2023 ngi ñaan ku teew ca bis ba laq ca ngërëmul yàlla ak pajuk aajo barke Xaadimu Rasuul barke Maam Seex Anta sëriñ sëriñ Modou Mamoun mu baax maa ko jur doonay haaji Seex Anta Bamba ko yar te Seex Anta maamam ja mbaax moo ca raw cofeelam te Seex Bamba te ko nelaw sëriñ Modou roq yi cër bii mu am da dig jagle njàmbaar ga ful ab cëram sëriñ Modou dëggoog dëggoog jëf ndigal xeroon lool ci addiya moo koy dëggal sëriñ Modou roq ya daa am ngërëm ca baayam ya maamam ya wuuf ay rakam sëriñ Modou roq ya yar jàngale jirim bàyyu miskin yërëm ma xale sëriñ Modou roq ya Bamba ko na Seex Anta maamam te xel sëriñ Modou roq ya muy géeju ngor ku ñëw sangu ak bagaan dootu mar sëriñ Mbacke Dieye soppo seex anta mbég la ci xol di faj ajo say biir di jag sëriñ Mbacke Dieye taalibey kub sa ngam cofeelam da koy fal mu raw ay kemam sëriñ Mbacke Dieye cant gi waaju ñëw na wér gudd fan wërsëgam faw xa taw la qualité fait la différence murid yëg lu leen maye mbir seex anta bu leen nelaw